soxna ma toog jàmbur dañ koy dox gis nga boo ko doxee rek da am jàmm. baal nga ma. nga fàtte ne tey soxna Batoor moo toog te bu ayee kenn du añ kenn du reer du ma xëy fii laay naa moom bu toogee tey ñëppay dee. mbaa am nga njëgu waaye kon doo màndi eh, sa mar bi dina la ray de ndax ndoxu waañ bi bu ngay naan ma gis naa ne kew kew moom bu ma ko indaale. àll gi kew kew baaxul de ci ëmb bi de man moom kew xam naa naa jënd maa doole doole mais kew moom bu ko jëndal. àll gi diree kew kew baaxul gis naa ko mu koy ko lekk mais ko baaxul.